أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم barki borom Tuuba béytu soxna jaare yi ñuy fas yéene jàng sëriñ Mbàkke Madina moom Cheikh Mouhamadinil Moustapha moom Cheikh Mouhamadul Basir moom Xaadim Rasul ca Poroxaan ñu tudd ko sëriñ Mbàkke Madina moo def taalif yi ci maamam ngir jëmmi maamam ak sàkku ngërëmul maamam yàlla na ko ci yàlla defal te defal na ko nun ñi di ko jàng ak taalif bi bu ko dégg rawatina daayira mi yépp barki borom Tuuba alhamdulillahi santan war Cheikh Moustapha Basiiru min wan nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ci yërmande moo baax nee na liggéeyal jaara alhamdulillahi santan war Cheikh Moustapha Basiiru min wan nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande moo baax jaara alhamdulillahi santan war Cheikh Moustapha Basiiru min wan nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande moo baax nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande jaara nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande jaara ramparaxaat nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande jaara ramparaxaat nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la ak yërmande jaara Moustapha mar la mu doon moo defaraat poroxal ndox ma baawaan lamp ya leer la leexlal tey bir leer moo baax Cheikh Moustapha mat la mu doon moo defaraat poroxal ndox ma baawa lamp ya leer la neexlal tey bernde moo baax liggéeyal waaw Cheikh Moustapha mat la mu doon moo defaraat boroxal ndox ma baawa lamp ya leer la leexlal tey berne moo baax Cheikh Moustapha mat la mu doon waraat boroxa ndoxuma baawa lamp ya leer fala leex lal tey biir leer baayu sëriñ Mbàkke Madina borom poroxaan waaw waaw Cheikh Moustapha mar la mu doon moo defaraat poroxaan loxuma baawa lamp ya leer fala leexlal tey biir leer alhamdulillahi santan
moo baax dina liggéeyal maam jaara bari nga nee la yërmande Cheikh Moustapha Mar la mu doon moo defaraat porox moo defaraat boroom Cheikh Moustapha Mar la mu doon waawaaw moo defaraat porox moo defaraat boroom Cheikh Moustapha Mar la mu doon moo defaraat porox moo defaraat boroom loxo ma baawa lamp ya leer fulaa leex lal te biir ndee alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa sëñ Mbàkke ne wéyal maam jaara bari nga nee la yërmande daara jaa ngi kenn du ne cam daara jaa ngi kenn du ne cam daara jaa ngi kenn du ne cam ay Mbàkke te du laaj kenn jëfam sol la xam-xam ngay royukaay soo ñibbee di defaree alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa waaw waaw ne la liggéeyal
bari nga nee la yërmande daara jàngi kenn du ne ca daara jàngi kenn du ne ca daara jàngi kenn du ne ca ay Mbàkke te du laaj kenn jëfam sol la xam-xam ngay royukaay suñu bee di defare alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa moo baax ne la liggéeyal
jaara bari nga nee la yërmande daara jàngi kenn du ne cam ay Mbàkke te du laaj kenn jëfam sol la xam-xam ngay royukaay suñu bee di defaree alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou maa yu Cheikh Moussa Nawel am jaara bari nga nee la yërmande daara jàngi kenn du ne cam ay Mbàkke te du laaj kenn jëfam sol la xam-xam ngay royukaay suñu bee di defaree alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa moo baax nee na liggéeyal jaara
yërmande Cheikh Moustapha yaa tabaxal sunu maam jaara bu soo këram sëttu xaadim yi ku fa dal ubbi néegam te bernde alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa moo baax dina liggéeyal maam jaara bari nga nee la yërmande Cheikh Moustapha yaa tabaxal sunu maam jaara këram maam jaara tu xaadim yi ku fa dem ubbi néegam te bernde alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa moo baax liggéeyal maam jaara bari nga nee la yërmande Cheikh Moustapha yaa tabaxal sunu maam jaara këram maam jaara tu xaadim yi ku fa dem ubbi néegam te bernde alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa waaw waaw nee na liggéeyal Cheikh Moustapha yaa tabaxal sunu maam jaara këram maam jaara këram tu xaadim yi ku fa dem ubbi néegam te bernde alhamdulillahi santanu wa Cheikh Moustapha Bassirou minu wa moo baax nee na liggéeyal jaara
yërmande nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la yërmande ramparaxal nee na liggéeyal maam jaara bari nga nee la yërmande nee na
ay nga nee la yërmande
ne la liggéeyal maam jaara bari nga ne la yërmande dem naa daarul minan juma ja yem na ma man daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo waaw waaw daaray kaamil kaamil kaamil la boole raw du seexal dem naa daarul minan juma ja yem na ma man daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo waaw waaw daaray kaamil kaamil dem naa daarul minan ñoo yem na ma man dem naa daarul minan ñoo yem na ma man dem naa daarul minan ñoo yem na ma man dem naa daarul minan ñoo yem na ma man daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo waaw waaw daaray kaamil kaamil daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo Cheikh Muntaxa Cheikh Muntaxa daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiroo Sëriñ Mbàkke ne pamparaxaan daaray kaamil kaamil la boole réew du seexal basiroo a kaamil Cheikh Muntaxa tontu maagam juma jure yi daal la tafal Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi dem naa kaamil Cheikh Muntaxa tontu maagam juma jurey la toofal Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi yaa daaray kaamil kaamil tontu maagam juma ju rëy la toofal Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi daaray kaamil kaamil Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi yaa Cheikh Muntaxa Basiru waaw waaw ku yokkul yaa Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi yaa Cheikh Muntaxa Basiru moo baax ku yokkul Cheikh Muntaxa tontu maagam juma ju rëy la toofal Cheikh Muntaxa Basiru Mbàkke ku yokkul yaa wàññi yaa daaray kaamil kaamil fii sax yàgg fi mbàkke te wér yàgg fi Mbàkke te wér lool.
li mu yéene defal maamam nang leen ñaan mu yeggale
laa daarul ñaarul naan du ma jéem na ma yéem na ma waaw waaw daaray kaamil kaamil.
ah, kaamil la ko dara du see xar basiiroo.
Seex Muntaxa yàlla fii sax yàgg fi mbàkke te wér yàgg fi Mbàkke te wér lool.
lim mu yéene defal maamam na leen ñaan mu yëggale laa daarul ñaarul naan du ma jéem na ma yéem na ma ma daaray kaamil kaamil.
kaamil la ko dara du see xar basiiroo.
soxna jaara moo mata gëm wana ne moo mata roy ne moo mata soxna jaara moo mata gëm wana ne moo mata roy ne moo mata soxna jaara moo mata gëm wana ne moo mata roy ne moo mata soxna jaara moo mata gëm wana ne moo mata roy ne moo mata jukaajo mooy kacca gaaw mooy doktooru njàqare daaray kaamil kaamil soxna jaara moo maata gëm alale moo mataaray soxna jaara moo maata gëm alale moo mataaray soxna jaara moo maata gëm alale moo mataaray fay jóg aja mooy kaaca gaaw mooy doktooru njàqare daaray kaamil ñaan leen mu am ngërëmam te bamba defal ko ndam sëñ mbàkke moom booraxa moom mi def yi taalife daaray kaamil kaamil ñaan leen mu am ngërëmam te bamba defal ko ndam sëñ mbàkke moom booraxa moom mi def yi taalife daaray kaamil kaamil ñaan leen mu am ngërëmam te Bamba defal ko ndam Sëriñ Mbàkke moom Poroxaan moom mi def yi taalife daaray kaamil kaamil ñaan leen mu am ngërëmam te Bamba defal ko ndam Sëriñ Mbàkke moom Poroxaan moom mi def yi taalife daaray kaamil kaamil ñaan leen mu am ngërëmam te Bamba defal ko ndam Sëriñ Mbàkke moom Poroxaan moom mi def yi taalife yéem na ma daaray kaamil la boole ñaan leen mu am ngërëmam te Bamba defal ko ndam Sëriñ Mbàkke moom Poroxaan moom mi def yi taalife daaray kaamil waaqi naan cees ak mbuur waaqi naan naan Cees ak Mbuur waaqi naan Cees ak Mbuur ndol ndol ak la ko wër boore reefon ba gannaar yaa tax ñuy xam soxna seen daaray kaamil kaamil waqi naan Cees ak Mbuur waqi naan Cees ak Mbuur ndol ndol ak la ko wër mbaare reefal ba Gànnaar yaa tax ñuy xam soxna seen kaamil waqi naan Cees ak Mbuur dol dol ak la ko wër boore reefon ba Gànnaar yaa tax ñuy xam soxna seen daaray kaamil kaamil waxi naan Cees ak Mbuur ndol ndol ak loo ko wër boore reefon ba Gànnaar yaa tax ñuy xam soxna seen daaray kaamil kaamil wullu tay yoo kala jëf soxna si donga la ñor bullu tay yoo kala jëf soxna si donga la ñor sëñ Mbàkke borom Madina sénéralu maam jaara bi bullu tay yoo kala jëf soxna si donga la ñor bullu tay yoo kala jëf soxna si donga la ñor sëriñ Mbàkke borom Madina sénéralu maam jaara bi bullu tay yokkale jëf soxna si donga la ñor sëriñ Mbàkke borom Madina sénéralu maam jaara bi daaray kaamil kaamil gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan jàpp ba sell daal tëgëm Sëriñ Tuuba ne woon na ma fekkul ma fekk la fa daaray kaamil gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan gaaw leen nu dem Poroxaan jàpp ba sell daal tëggal liñ Tuuba ne woon na ma fikul ma fekk la fa daaray kaamil kaamil gaaw leen nu dem Poroxaan jàpp ba sell daal tëgg Sëriñ Tuuba ne woon na ma fikul ma fekk la fa daaray kaamil dem paraxat jàpp ba sell daal tëgga Sëriñ Tuuba ne woon na ku ma fekkul ma fekk la fa daare kaamil kaamil jaale lu dem Porokhane jàpp ba sell daal tëgga Sëriñ Tuuba ne woon na ma fekkul ma fekk la fa gaaw leen nu dem Porokhane jàpp ba sell daal tëgga Sëriñ Tuuba ne woon na ma fekkul ma fekk la fa ndox ma baawaan lamp ya leer du la neex lal te bernde daaray kaamil kaamil ndox ma baawaan lamp ya leer fu la neex lal te bernde kaamil ndox ma baawaan lamp ya leer fu la neex lal te bernde kaamil ndox ma baawaan lamp ya leer fu la neex lal te bernde kaamil dem naa daarul minal juma jeyem na ma man daaray kaamil la boole la boole groupe du seexal basiro te jaay moom ba daalo ay yaay yaay kacaama soxna ameen loon yaa may faalu maam jaara bee juma ja yeem na ma te jaay yaa maa toro soxna si donga la ñor loo ko jox mu moom da koy boole li mu yor yor ko soxna si yaa waaw daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiro borom paraxaan borom paraxaan daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiro sëriñ Mbàkke borom paraxaan sëriñ Mbàkke daaray kaamil kaamil la boole raw du seexal basiro la boole raw du seexal basiro xaadim laa sa abdullahi xaadimu rasool duniya wa oxra ismaatan wa xayra sool ahmadu bamba duniya wa oxra xaadim laa sa abdullahi xaadimu rasool dunya wa oxra ismatan wa xayra sool ahmadu bamba baax duniya wa oxra xadimab lii seefe naata bi kullil janna min daaratil minani yaa salmilna bi kullil janna min daaratil minani xaadimu keroog la Seex Bamba tabi gi yeji Kongo kabla bisaala wàcc neema gongo Ahmadu Mbàkke Ahmadu Bamba kabla bisaala wàcc sëriñ bi yaa ma ta doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay Ahmadu Mbàkke yow rek a sëriñ bi yaa ma ta doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay Ahmadu Bamba Xaadim yaa ma ta doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay Ahmadu Bamba béguloo Nabi yaa ma ta doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay Ahmadu Mbàkke Xaadim yaa ma ta doyloo yaa gaaw nooy walloo yow rek a béguloo rabbi samaay Ahmadu Bamba Xaadim yaa di dëkkaale Allahu taale yaa man a taale yaa sëddiyaay Allahu yàlla Xaadim yaa di dëkkaale Allahu taale yaa man a taale yaa sëddiyaay Allahu yàlla Xaadim yaa di dëkkaale Allahu taale yaa man a taale yaa sëddiyaay Allahu yàlla Xaadim yaa di dëkkaale Allahu taale yaa man a taale yaa sëddiyaay Allahu yàlla Nabi say wax laa doyloo maa fuus ngay solo yàlla la wayloo yaa sa xinaay Ahmadu Bamba Nabi say wax laa doyloo maa fuus ngay solo yàlla la wayloo yaa sa diyaay say wax laa doy loo Ahmadou Mbacké Mahfouz Ndiaye solo yaa way loo yaa Sadiya
bi say wax laa doyloo la doy loo maa fi wus ngay soloo yàlla la wayloo yaa sa diyaay say wax laa doy loo Ahmadou Mbacké Mahfouz Ndiaye solo yàlla la way loo yaa Sadiya sëriñ bi nag wañ ko booleel ko boole ak a gaaw a jeel Jibril la dajeel bila xanaay nag wan ko boole Ahmadou Mbacké rabbi nag wañ ko booleel nag wañ ko booleel nag wañ ko booleel ak a gaaw a jeel Jibril la dajeel bila xanaay wan ko boole Ahmadou Mbacké nabiya way rasolo lu waay la loolu defal nu wóolo neema rajaay nag wañ Ahmadou Mbacké borom Tuuba boole nañ ko gaynde gaynde ga mel nem xar boole nañ ko gaynde ngar ga gaynde ga mel nem xar mu mel ne moo ko yor waxtal xanaay ngarga Ahmadou Bamba mu mel ne borom Tuuba boole nañ ko gaynde ngarga gaynde ga mel nem xar mu mel ne moo ko yor waxtal xanaay Ahmadou Bamba ngarga ga mel nem xar mu mel ne moo ko boole nañ ko gaynde gaynde ga mel nem xar mu mel ne moo ko yor waxtal xanaay Ahmadou Mbacké Ahmadou Bamba mu mel ne moo ko kenn du ko gëstu ba xam ko gàntu kenn du ko gëstu ba xam ko gàntu kenn du ko gëstu sëriñ bi ba xam ko gàntu moo di ab rootu lii loolu yaay Ahmadou Mbacké Ahmadou Bamba moo di borom Tuuba kenn du ko gëstu ba xam ko gàntu moo di ab rootu lii loolu yaay moo di ab rootu borom Tuuba kenn du ko gëstu ba xam ko gàntu moo di ab rootu lii loolu yaay sëriñ bi sul nañ ko cim yeer foog ne fa leeter mu xëy ne mel na weer ma albaay Ahmadou Mbacké sëriñ bi way yaa ko jëggoo ci la nuy feegoo ci la nuy faggoo xayra namaay Ahmadou Bamba Bamba mooy biiru dellu diina nekkadi baarum baaro diyaay kenn du ko gëstu Ahmadu Bamba ba xam ko gantu Ahmadu Bamba moo moo di ak rootu lii la liyaay gën nga taxawaay gën nga leeru waay yaay defal sa waay xayra namaay ak wañ ko booleel Ahmadu Bamba sëriñ be yaay kii jara woo ngir yaawaaw sori woo mbinga mu bawa min si samaay ahmadu bamba jibril ba daje sëriñ be way yaa ko yelloo amuloo ko nawloo diiwaan nga faloo fawxa samaay ahmadu bamba Ahmadu Bamba Jibril daraja Sëriñ bi yaa di di dëkkale Allahu taale yaa mana taale yaa sa diyaay Allahu yàlla yaa mana taale yaa sa diyaay jërë ngeen jëf Cheikh Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér jërë ngeen jëfati Yàlla